salaamaaleykum mbokki Yoff salaamaaleykum mbokki àdduna comme ni ñu leen waxoon émission bu bees bu ñu naan seeti mbër moo xam fu mbër nekk si yoof si gox si ruq-ruqaat yi dañuy dugg dem seeti ga tey jii ki may indi mooy grand champion di leen di leen wax ne champion maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay moom ba. champion lu dugal si làmb. ginnaaw loolu amee auzu billaahi mina seytaani rek bismillaahi rahmaani rahiim di sant suma waajur di ñaanal suma bàyyi. yàlla yërëm ko jéegal ko fa mu dem gënal ko fi mu jóge li ma duggee si làmb daanaka rek maanaam sama juróom bi Ousseynou Thiaw champion bu mag ñoo daan ànd di dem géej di bëre ji lambi di tefes di bëre di daan ñu ñuy daan après sarma làmb dugg ñu rek moo waral ñu nekk si làmb ji di bëre ko ñaata combat nga am man arène am naa deux combats arène yow bi ngay duggee si lamb neexoon na say waajur wala parce que tàggu nga leen bi ngay duggee si lamb. mooy loolu man de maire bëggul bëri bañu ko nag maire mooy loolu des fois dama si tooñ nii rek bëgg ko mais bi may saa yi may bëri dañ may ñaanal xam ne man bëgg naa lii dañ may ñaanal di ma jàppale ay lu di dem ñuy dem àndax ay mojj ay Demba Thiaw man maa leen daan dogal ci mbugaay bu ñuy bëree ji mm-hmm. mbapat ay ñoom mojj di àndax ñoom fu ne mm-hmm. ay gin ab lay jóg noonu dem ba làmb dugg ma ma commencé ne damay bëre bima daan bëre sax ki ni Kader Papa saw ndaanaan bi daf ma daan wax na man yow mëno tok nga naan da ngay bëree bu daan su ko di contact si pax la ma daan woowee si pax tellement que ni ma tuutee woon quoi bi may ñëw ne damay bëree mais ma nekk ci équipe bi rek di dem di jóg xadaanu di andax ñom fune fu ne di seetaan fu ne fu ñu dem yóbbaale ma lool mo mu duggal ci lamb bu ma commencé bëri. sa premier combat ñu ne kaawal gi. Hmm. dans le premier combat. combat boobu yow bi nga koy waaj est ce que waaj nga kaa say mbokk normal. dëgg la premier combat bi waaw waaj naa kaa sumay mbokk de wax suma gars yi gars yi moom ñii toog nii ñëpp sumay bëre duñ nelaw jàpp nañ si bu baax maa ngi doon bëree bégaay yi ku ñu wax bégaay écurie Cambérène mhm. moom laa bëree sama premier combat arène mhm. ànd ak samay mbokk yëpp. ñu jàppale ma ñaanal ma ma ànd ak samay xarit ak ñi may jàppale ñëpp dem bëre yàlla may ñu ndam ñu ñëwaat. si côté jappalé bi est ce que yaa ngi si sentir sa bop ci côté jappalé bi. côté jappalé bi waw manam sama ndijay monsieur le maire ma ngi ñu yara passe damay jappalé bu baax may beuri ay bësigéey yi cheikhou dia Baye Assane ak gaay may andal ni may bëri lu ne lañuy daj lu ne fu ne lañuy dugg pour ut fa xaalis may waxat maire yo fa dañu gën ñu jappalé su côté bop ñun ñu nekk lañuy daj bu ñuy beuri fu ne lañuy nelaw so duñ ko defati. ndax war ñu ñu jàppale si suñuy combat. comme ñu ne xew-xew bii am si dëkk bi de ñu ne coronavirus. Mhm. moo xam ne tënk nañu bari yéen mbëru ndaw yi est-ce que du ngeen am jafe-jafe te maanaam di am loo xam ne tey jii du ngeen ko waaw corona bi moom metti na lool ñuy ñaan yàlla rek mu jële ko fi làmb ji commencé demaat normal nu mu doon demee ba ñu gis suñu bopp jaay di bëre ñu ñuy bëri mais instant yi moom ñun ñu ngi am nañ si luñ jàpp ne wuñu si làmb ji kese. kii max moom ñooy defandoo opération tabaski damay ne si ginaar yi damay dem géej bàyyi ngeen mii suñu coach dafa am gaal matériel foofu laay demee géej man. par par des fois damay dégg ñu ne mbër. Hmm. day yem si làmba kese mbër dafa war a ut métier. Hmm. comme nii xam nga tey yaa ngi ne da ngay jaay ginaar. Hmm. dugg nga si tey bu géej gi neexul yaa ngi si ginaar yi wala yaa ngi si xar yi. tey jii lan ngay jox sa yeneen morom yi nga xam ne ñooy mbër yu ndaw yi tamit rek di xaar làmba. ma leen wax rek ñu farluwaat rek góorgóorlu bu baax te xam ne làmba ji moom surtout mbër mu ndaw sax dafa métti boo si nekkee da ngay ut métier mbër da ngay métier da ngay liggéey. Hmm. waaye toog rek naa làmba laa yaakaar mooy loolu da ngay gën a sëme rek. parce que boo bëree tey balaa ngay bëriwaat yàllaa xam mën ngaa def ala balance parce que yàllaa xam combat nekkul yaa koy jox sa bopp da ngay am chance nii rek ak sa ménagère jàppale la nga dem mën ngaa am chance bëri mën nga am chance bañ bëri kon bu fekkee nag jàppoo si dara. yaa ngi sonal say bopp yaa ngi sonal say mbokk. yan jafe-jafe nga am si biir écurie Yoff mu wax na tey jii lii yaa ngi koy dund neexu la. écurie Yoff ah écurie de moom daanaka awma ma seen fay moom ndax nu ma mel ñoom la. nu ma ñoom la. nekk naa fa nekk seen biir doon xale di soxlu ñoom mojj ay mbéy ngoone Ablaye Diop ñoom ñu nekk suñuy mag di ñu jàppale taxaw staff bi. ñoom Ahmed bi Baye ngeen kii Mademba Gueye Ado Baye Tam amuñu seen fay ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax daal lenn rek mooy suñu cat mooy côté financement tuuti bu ñuy bëri ñun problème yooyu rek la ñuy am mais Igri Yoff moom li leen war yëpp si ñun ñu ñu koy def ñu ñuy fayal saal ñuy entraîné. côté financement si yan côté si lu jëm si mairie bi la wala loo xam ne dañuy dafa war a jëm si Igri bi la wala. waaw lu jëm si mairie bi tamit mairie bi war nañu gën a jàppale bu baax a baax. Mm-hmm. boog man boog pour man xaw ma nag yeneen mbëri yu mag yi wala ñeneen ñi nekk si équipe yi mais man boog dese naa gis sama bopp si maire Yoff mais suñu staff moom ñu ñuy jàppale bu baax a baax man ñii ñooy rey seen bopp su may bëri ñii ak ñi ma wax nii ay ñoom Bessie Gueye Seexu Dia ah sama nijaay monsieur le maire at yi Baye Assane ñii ñoo siy jàpp côté financement bi ñii ñoo siy dox ak sama mag Ousseynou xaw ma fayam mooy bëri lu ne lay daj day bàyyi liggéeyam sax ñëw topp fu war a dem mooy dem jël machine am dóoruwam te man mënoon na kii xale laa wala kii damay taaral mais day bàyyi liggéeyam bàyyi léppam fu may bëri fu ne di bëri. lañ ne dañuy ñëw si côté dañuy ñëw si côté écurie Yoff. Mhm. dañu gis ni souvent mbër bu amee combat comme yeneen ñi nga xam ne tey jii ñoo leen féete kaw. Mhm. est-ce que jàppale bi ñuy jàppale ñooñu est-ce que yéen mu ngi seen yéen bu ngeen amee combat ndax dañu leen jàppalee noonu. waaw bu ñu amee combat waaw dina am ñoo gis ñoo taxaw si de ku si mel ay ay ay Demba Thiaw ay Abdoulaye Diop. ay ay ñoom mojja dinañ ñëw taxaw la quoi staff bi bàyyi ngeen. dina ñëw ñoom daal li ñu war si diggante ñoom. ñoom ñu ngi koy def. ñu ngi taxawu si combat yi di ñu yokk doole si entraînement yi bu contact jotee ñu jël liñ am yëpp def ko si ñun. coach yi ñu ngi suivre boo bàyyi ñu ne la xoo oh, defal lii bul wax ñu ñooy wax liñ la wax loolu ngay def. si côté ñaari écuries yi am si Yoff tey ji ñu ne yoof mel nu comme caaro yi wala Pikine wala Guédiawaye wala parcelle foofu mën nañu wax ne affaire bi dox doxaat la. mais yoof est-ce que jaarul tey yoof ñu def ko benn écrit yéen ngeen mënti santi seen boppa bu baax a baax. yoof de perex bi benn boppa la rek kenn mënu ko xari ñaar ñaari écrit yi moom turu ñaari écrit la nii rek. Mhm. yoof mbooloo écrit yoof mais daanaka ñoo bokk fi ñu entraîné. Mhm. ñooy kontaagandoo ñooy bëreendoo ñooy fisigandoo. ñooy defandoo lépp suñu combat yi mujjee bëri nii ñu nax ay loobu yof ay caat yof ñun ñëpp ñoo doon contact ñun ñëpp ñooy entraîné ndoo ñooy physique ñoo ñooy ñibbeendoo mais këyit la rek turu ñaari écurie yi ñuy wax nii këyit la si këyit la nii rek mais ñun ñëpp ñoo bokk fi ñuy entraîné normal sottinte xalaat mayante doole sa premier combat nga dugg si arène bi doo mhm. xam nga premier combat dafa métti mhm. pression bi way dëgg mi te loolu bu fekkoon yow lii maanaam miin moom ba pat mhm. foofu dina xaw a def foofu effet tuuti est-ce que si côté boobu amul la jaaxaloon sa premier waaw li ma dimbali mooy mooy li ma la wax rek yàgg a ndax ay mojja mhm. ay ñoom Demba Diaw mhm. man sama duggee si làmb moom daanaka Demba Diaw def na si lu bari may mhm. góone Demba Diaw parce que si moom laa daan nekk moo may buy physique buy jëm fajar gi yëpp ooma sama premier combat li ma daan dem mbappat dimbali na ma bu baax ak li ma ànd ak ñoom yàgg gis géew yàgg taxaw si géew amoon benn pression si loolu ma dem entraîné ànd ak samay mbokk dem fi ma war a dem yëpp ñëw taxaw bëre yàlla may ma ndam ma ñibbisee. souvent damay am lu muy dégg si maanaam si biti mbërëm Yoff du mbapat. Hmm. day toog di xaar combat arène. est-ce que jaaduwul fu ngeen dégg mbapat caaro yi Pikine Thiès fu ngeen dégg mbapat parce que yéen ni ngi ne làmb mooy seen métier. Hmm. dont yéen fi ngeen war a dégg mbapat rek di ngeen war a mën a def takk seen gemba hmm. wane seen bopp foofu ba tax ne jafe-jafe yu duñ am si biir géew. dëgg la dëgg waaw ñenn ñi ñoo xamul rek ñoo yaakaar ne mooy loolu rek mais booy Igri Yoff dañuy bëri ji dañuy bëri ji mboppat de dañuy dem fu nekk fu ne dañuy dem ay ciki dañuy dem Morola dañuy dem xombal kii ànd na moom xombal mbapat di ba tàyyi dañuy dem fii fii am tudd di sax ay déen ay ñaŋal booy fu nekk la ñuy dem di bëri wax dëgg yàlla. même ay gars yi ñoo sa ay gin fu ne mboppal lañ fa ay ñoom mojja man mojja ndax ndax moom mboppat fu ne mojja man maa ko daan toogal ci mbugaay mojja fu ne bëri na fa mboppat ma toog di ka seetaan kon man bu ma duggee si géew warumaa ragal parce que yàgg naa xam géew yàgg naa si dox du ma am benn pression si géew man sama pression làmba si côté aide bi la affaire yooyu mais géew man géew mooy loolu gurée su meeku lu taxaw bëri rek jaayante man loolu ragaluma loolu loolu moom xaw ma si benn pression dañu gis ne yoofu làmb daf si xaw a dee parce que boo xoolee temps bu ñu ko dëgg daan gis ay mboppat ku ne di tëggi mbapat yooyu. mais mu dem ba booy indi benn xaram kanam boo xam ne. affaire yi manque de respect. te da jël sa xaalis. di dimbali leen pour tëggal leen mbapat pour ñu mën a siw jaare fa dem kon lu mel ni ay mullu Balla ngay de. te xam ne ñooñu si làmb la lan ngay jox ñooñu message. dëgg la yow xaw na fi dee nag. dee na fi bu baax parce que daan na am muy neex muy yëngu. mais léegi daanaka ay combat nommé rek mooy am tournoi sa mbër yi du sax mbëri ñii di ànd ak mbëri ñooy ñëw tey suñu caw day bëri suñu kaabal gi day bëri ñu daan ka wala membre di ñëw bëri ñu daan ka kii ànd ak membre yi jël xeer sànni mais ñi ngay invité say kilifa duñ taxaw ñu ngi xa toj seen bopp làmb ji day toj ku ne day dem ñibbi mais loolu rafetlu wuñu ko buñ señoon làmb di am yoof ñëpp di ñëw paaye meereex jigéen ñu góor ñi ñëpp ñëw ku ne ñibbi war si jàmm daanee mbër mi mbër mi mu àndal day saaga sànni loolu mooy toj làmb yi. Mm-hmm. te ñoom mojjee jamono bi ñuy bëri loolu bari fi woon làmb daan na toj mais bariwul noonu. Mm-hmm. parce que man loolu fekkee naa ko ndax maa ngi daan toog ci mbugaay boobu. Mm-hmm. di seetaan. dañu gis ne daaw. waa suñu làmb def lu rëy. def lu am solo. ñu ne écurie Yoff moo jël meilleure écurie. loolu yéen lu leen def yéen. di rafet lu rek kontaan di si kontaan bu baax xam ne góorgóorlu lañ bu baax. parce lu tooy ni ay. nangam nangam ay eh, cinquante et quelque ëpp na ko di dem écurie Yoff jël pee kon liggéey nañ liggéey nañ bu baax ñu ngi ko doon ñaanaat yàlla mais jaama pexe mais yàlla dogalam confinement bi am nii mooy mais gars yi ñu seen i entraînement ñoom bàyyi ngeen teg ñu mayul booy dara mayu ñu jàmm temps yooyu mayu ñu jàmm ay ñoom odo bàyyi itam amuñu seen fay ma Demba Gaye si Sibi jàppale nañu bu baax di ñu taxaw ay suñu président Papa Ngunda taxaw nañ bu baax ak kii du béy. Mhm. taxaw nañ ñu si bu baax côté boobu moo taxoon écurie Yoff am déclenchement boobu booy di entraînement kenn kuy bëreeg sa morom gën la gaa bëgg. Mhm. moo lay yow mi di bëri sa gars yi ñoo lay jiitu écurie ba. Mhm. kon daal nga ñëw rek ñu ne la ay ca su meekul takkar gémbali. dañu gis mbër mu ndaw. comme mbër yi nga xam ne maanaam ñoo ko féetee ñoo ko féetee kaw ñi nga xam ne dañu leen tudd. mbër jéeg mbër mu ndaw jekki say dem rocceeku jël avance boo xam ne. course mu yëgul président mu yëgul kenn yëgul. mu dem souvent dañ koy gis si yéen loolu yéen ban jàngat nga ma si indil. dëgg la dëgg la man moom joobee ma loolu mosuma ko def man bañ na ko boo Matar Ndiaye suñu waxee waxi combat rek man damay oo bàyyi ngañ bàyyi ngañ lay sama mag suñu waa gër sax kenn du ko yëg. Mhm. bàyyi ngañ lay njëkk wax nañ ma combat nangam mu ne ma ndax gis nga adversaire ma ne ko waaw. Mhm. mu ne ma ban date la ma ne ko jour nangam mu ne ma baax na ma jël mosuma jël combat man kese ñëw ikiri ba. Mhm. combat yi ma bëree yëpp dama si waxtaan ak bàyyi ngañ ba mu d'accord. waxtaan see su may kilifa waxtaan see su ma mag. Mm-hmm. ñu ne waaw ma jël. Mm-hmm. bu ma waxoon tamit bul bëre du ma bëre parce que ñoom ñoo ma yor buñ juddoo ba tey seeni loxo lañ ne ñoo ñuy tàggal. Mm-hmm. kon ñoo teggi seeni wax di teg su ñuy wax di forcer. kon du ma forcer barrage. Eh, bañ naa xam bu duggee si làmba yàgg na. te gis nga deux combats. kon bu ma doon forcer heure bi war naa wax ne maa ngi si ay six combats la set. mais sama temps la. deux combats yi nu mu demee. deux combats yi. Mm-hmm. sama premier combat laa daan. Mm-hmm. sama deuxième combat ma ngi beure bëri le premier février. Mm-hmm. man ak caatu ngeul ñoo bokkoon journée. Cheikh Mbaba moma dan ma daan. boobu sama deuxième combat. sa deuxième combat la mo la la nga xalaane nga xalaat la ñakalo lima xalaane moma ñakalo sama deuxième combat. leen na rek la. manam xexna xex bu jaarul yoon. taxaw na ni ma taxawé ba bari bëgg sañu ku kuu. te fi ma xexé war ma faa xeexee. ñu daw sa sàcc ma. amoo après da nga xof tol dara du fa des. dama dóor ku dama déclenché ku boo xamante ne waruma kaa dóor. Mhm. saa yi daw joox man. Mhm. jàpp ma daan ma. yow boobu noo ko dundee keroog bi ngay dugg si kër gi. defet boobu metti na ma lool jooy naa stade bépp. Mhm. ba fii kër gi yëpp dama ko jooy jooy naa bu métti parce que man xalaatuma ma woon ne dinaa daanoo fii. ak combat boobu laa gënoon a am yaakaar si laa gën a entraîné. si laa gën a sama boo ko doole si laa gën a sama boo ko bëri. li ma si def defuma ko sax si sama premier combat bi. ma woon defet foofu. maa ngi koy maa ngi ne si làmb xam naa dina ñëw. mais xalaatuma ko woon si combat boobu. Mhm. pour man ay quatrième cinquième lay doon. Mhm. loolu moo tax ngay bëri jaaxal ngay bëri lu waajal combat xale yi ñëpp naan oowee mhm. yàlla ñoo ngi lay ñaan kaabal gi jël yow foofu def. waaw sa yaram day daw moom foofu moom wax dëgg yàlla moom sa yaram day daw. parce que di gis sa baay taxaw di ñaanal la sa yaay taxaw. say xarit say am di jàmm sa waa koñ xale ñëpp génn. ñoo kon foofu dem teg bakken bi rek moo des. Mhm. góorgóorlu fexe am ndam loolu rek nga leen mën a fay. Mhm. mais ñaari ndam mooy duggamee benn mooy génn. Mhm. ala kulli noonu rek lay demee. ñaanaat yàlla rek pour seen combat yàlla defal ñu ndam lu rëy seen dugub gi rek. lan ngay jox message sa yeneen moroom yi nga xam ne tey jii maanaam dugg nañ si làmb njekki say dem ba kenn déggatu leen ku si ni tëdd liste. moom ku si mel ni Malick Niang. tegle ay ay ndam yu bari ndam yu am solo. ñu jékki saay kenn gisatu ko juróom benn at mu toog si làmba kenn gisatu ko yéen ñi nga xam ne yéen ay rakkaam tey ban message ngeen koy jox ngeen ko modifier pour mu ñëwaat toogaat place waaw loolu de moom motivation bi yaakaar naa ne ñu ngi koy def bu baax man ñaa moom champion la. Ama Baldé rek kaa ko daan. Mhm. te Ama Baldé daan ko taxul. Mhm. te rew kaa doon champion champion la. Mhm. dañuy ñaan yàlla rek. mu ñëw suñu kanam mu ndax mu ngi si ñun sax mu gën a nekkaat suñu biir rek combat yi mujjee igir yoof yëpp mu ngi fa di contact mhm. dañ koy ñaanal yàlla rek gaa yi jël ko mu am combat bëri mhm. fexee daan déclenché demaat si ay moromam ñu mu bëgg a bëre mhm. mais instant yi moom dañ kay ñaanal yàlla moom combat rek ñu ñëpp a bëgg mu bëre billaahi ndax igir yoof bu bu déclenché waatee rek moom si la bokk moom Malick Niang moom bu bëri waatee rek pour déclassement amaat day boo xoolee li tax xaw leen a fàtt sa moo tax gars yi xaw na a suul si làmba tey ji buñ déggoon ne mën na nag am na combat rek écurie Yoff day gën a jógaat si kaw mais mhm. mu jekki saa écurie Yoff di baissé même donte yéen a ngi am ay ndam yu am solo sax feeñatul mhm. liggéey seen teddali si kooku boo war a bëri moo war a bëre moom laa lay wax ni rek écurie Yoff mu ngi baissé mhm. baissé na tuuti rek mais taxul ñuy wax baissé baissé noonu parce que bëri na ñoo xamante ne bëriwul bëri na ñoo xamante ne dañ année balance ay gisumeen ni ay ñoom bàyyi lay ay juma juma cox ay Demba Thiaw. Abdoulaye Demba Thiaw sax moo si bëriwaat fan moo booy jobaas. moo si mujjee bëri booy mais ñoom ñëpp dañ année balance. looloo tax écurie Yoff mel ni ku beesaw. terewul ñi amoon combat seeni combat mu jëwul su mel ni Modou Dia waroon na bëre caatu Boy Bambara. Canta amoon na combat. waaw. defe naa ñoo ñoo si amoon combat mu jëw ñoo bëri. caatu ngéwël caatu ngéwël caatu ngéwël bëri na. maa moom ma bokkoon journée. caatu mm-hmm. ngéwël bëri na petit l'enfant bëri na daan. Ama bu Yoff. Sekk Ndaanaan Sekk Ndaanaan. Mm-hmm. ñoo ñëpp bëri nañ. Mm-hmm. mais ñi bëriwul ñoo ëppoon. Mm-hmm. ak kii Gine bu Yoff. bëriwul mais amaatoon na combat ñu wax combat mobile désert. ñoo ñëpp buñ bëree xëy na kii Yoff dina déclenché waat sa gaw sa kanam. est-ce que maa lañ naan taxaw seetlu parce que tey jii jaarul mu wàcc du question sa wàcc. mais mu jël si booy yi nga xam ne tey jii. maanaam tey bu leen daanee bu si amee ndam. dina ko mën a delluwaat place am mais tey daan nañ la nga toog juróom-benn at bëriwul. juróom-benn at tey lu la fa xaar woon du la fi fekkal mu gis que muy laaj li nga xam ne tay jii ñooñu ñu ngi dem seen yoon est-ce que ñooñu jaadu na pour ñu jël ko wala duñ ko jël. ñooñu mën nañ ko jël te mën nañ ko bañ a jël mais buñ ko jëlul rek fa fekk dañ kaa ragal wala ñu am lu ñuy sóor si Mariña. mais ku ko jëlul rek ku ne du mbër wala mooy lool da ngay da ngay yoon da ngay yooy yooy mhm. mais ñun ñu ngi koy ñaanal mu am combat tamit li nga wax tamit am na solo bu baax. ñu mhm. muy yootu mën leen a jot mais lañ na mu wacce beure ko si mel ne kon ab ab garga mboose. Hmm. wala al sey de non al sey de sax may ñaar koy jël. Hmm. kon garga mboose wala ay kii nii. Hmm. ñoom Abdou Diouf. ñoy ñep de combat de déclenchement rek ñooñu sax may ñaa moy lolu du seen morom. mais tafatin mi fi nekk nii mu ngi wax gaay amul combat mënon na jël Malick Niang. ndax moom Yékini Junior mi ngi fi jël suñu Junior rawul may ñaa te jël suñu Junior bëre mom Mhm. kon warna ma mhm. oh, mhm. ya, ne a may ñaa waaw warna naa may ñaa de ma mali ñaa bu señu beure léegi léegi yaa xam rek mais beuri ñoko jël te tamit du jël bopam tamit fekk adversaire ab kaabal gi diga jël di bëre mom tamit il faut mbëri xam lool mbëri ñoko wara waree jël bëre moom dañu gis ne ku ko ci jël mu defaral la dañu gis ne ngeen daan def 3 séances ak ah, li fi xew ni pandémie bi tay ji entraînement yoyu nan lay démé seen ñu moom ainsi entraînement yi dañ koy maintien rek mhm. gars yi ngi wàcc defatuñu pour groupe parce que mhm. rassemblement la nit ñi di bañ mhm. mais saa nga gis cinq personnes ñu ngi wàcc géej ñu ngi dem saal mais mënatuñoo def ay contact yooyu yëpp yooyu moom defatuñ mais saa nga toog sa ruufu entraîné dem ñibbi ndax combat lay beete moo tax mais gars yi ñu ngi seen ruuxu di entraîné moom gars yi ngi entraîné di ñu maintien bu yi ngi entraîné jàpp na gars yi ngi entraîné mais dañu gis ne au souvent comme maanaam comme li nga wax sànq. Mhm. yéen a beneen équipe bi yéen a équipe Yoff Mbollo. Mhm. yéen a benn fi ngeen entraînement yee. Mhm. ce que foofu maanaam ku si am combat est-ce que du ngeen am ay doute jàppee kii mën na fi indi dara wala yooyu. ah man de loolu yaakaaruma nga de. ci sama xalaat bu rafet boobu. ndax yaakaaruma loolu de man dama jàpp ne Yoff ñun ñëpp benn la. te ku si yor style boobu tamit wala ku si yor jab boobu. yow li ngay woote dëgguwul si yow. Mhm. da ngay tirise. Mhm. te man du ma tirise man xaw ma tirise. Mhm. man dama jàpp ne combat loobu yow sama combat la. combat caatu ngéwél sama combat la. combat caatu yow sama combat la. combat monje sama combat la. ñu jàppalante ñun ñëpp jàpp jàmm. écurie nag du ñàkk ay wax yu sew yu si nekk si biir. mais man moom détail yooyu moom xaw ma si dara du ma si sax jéem a sori. man bu ma doon bëre nit def ma dara sax dama naan yàlla moo dogal loolu mhm. ñu ne ma lii ki la daan wala nangam si diw mi la jaar mhm. ñu ne ma si Seydou Thiaw mi la jaar da mhm. fàtte naa loolu damay xam ne defet moo ñëw dama war a daanu parce que mën na jaar si Ousseynou Thiaw Ousseynou Thiaw naan yàlla moo ñëw kon bu defet ñëwee rek dama naan yàlla moo parce que mbëri tamit loolu seen jikko la dangay ne ak nit pendant des années benn combat ñëw ñu daan ko rek mu ñànki di la wax du ne ñi naan laan kii moo la taxal li yàq mhm. moo dul diw moo dul diw mhm. ñooñu ay yàqkat lañ ñooñu donc ñooñu yéen waruloo leen déglu ñooñu moom man li may wax gars yi rek mooy mbëri ñun ñoo am suñu fulla mhm. suñu fullaay fayda suñu fulla suñu fayda kenn ba ñoo jox joxase kenn suñu biir li nga wax nii am na bu baax dama koy gis gars yi yéenay di ko dund nit daan la nga ne kii la wala nàngam la wala kii la diw la te boo amoon ndam doo wax yooyu yëpp am pour man yooyu affair de saldel la lamba lamba ji yow sa premier combat ku am. sama premier combat maa ngi ko bëree Begaay Igiri Cambérène la nekk. Mhm. Begaay moom laa bëree sama deuxième combat ma bëree Cheikh Mbaba. Cheikh Mbaba Igiri Cheikh Mbaba. Mhm. maa jaadu ngéwél ñoo bokk même yi ñuy bë ñuy mhm. moom Fils la doon bëreel. Fils mu ngi Igiri Cheikh Bamba. Cheikh Mbaba man seex Mbaba mi may bëreel mu ngi Igiri Cheikh Mbaba. même Igiri quoi. même Igiri lañ doon bëreel. ñaar man ma ñëw ma daanu mais moom moo daan Fils de Zalo. maa dañoo xam lamb technicien yi xam lamb waaw ñaari xale yi jàppante nañ waaw waaw waaw ñaari xale yi jàppante nañ diggante Moustapha bu Yoof ak Matador bu Yaraax Moustapha boo tegalee sees da ngay am dara Matador boo mbotee di nga am victoire wallaay lii noo gisee jàppante bi noo gisee ñaari xale yi nuñ jàppante bi oh, sees la ñu waxoon yam na ah oh, balaa doon jëm tegal sees Moustapha tegal na ko sees lii mooy waxal ne lii mooy war a xamal ne ñu xam lamb ñu ngi si tuus bi. daan jël bu rëy li Adam wax léegi lamb da nga mbokk dañ demoon réussir seetaan yi bi nga xam ne di ji combat kaabal gi la mu def si lu am solo kaabal gi combat bi noo ko bëree. waaw combat yi. Mhm. combat yi dañ taxawaay bi mhm. ñu ñu léetoo mu may jéem a jaay xam nga rek affaire waga mu cokkaas ma si xeex man ma taxaw rek ak sama garde saa yu dóoree ma remise ga mu cokkaasaan ma boobu yëpp mu ngi bëgg a daw sàcc ma daw jël ma man bi ma xamee lool ma gën a suul samay tànk mu cokkaasaan ma rek ma remise ga mu dal bu baax takk mu taxaw après si la mat méb nii rek daw jël ma daw jël ma ñu génn si saako yi arbitre bi sifflé après ñu yor taxaw ñu ne xiis mu xeexaatax man ma remise at rek mu daw sàpp sàcc ma mhm. mu jàpp sama ndigg mhm. tel ma di ma jéem palaake plaqué ma bañ mu dàq ma ak naax bi takk mhm. sama ndigg daw wax man di jéem a plaqué rek ma def benn rotation rek dóor ko mbot deuxième billet waaw mooy lu rëy nga bëri foofu bëri bu am solo nga ñëw yoofu gépp ñi di dàccu yi am di jàmba yi soppe loolu def sa premier combat première moom daanaka moom sama xool da si sedd quoi sama xol da si sedd ba parce que li mu nekk sama premier combat. combat de classement. ma ñëw ñu bëri yaakaaroon ne ne mooy loolu comme li nga ma doon posé sànq rek question bi géew bi dina mooy loolu. ma ñëw ñu firi. xàkkanes taxaw. mel nit mbër mu mag muy bëri. mais loolu yëpp la ko yóbbee mooy da nga mbapat. parce que ba mbapatu woon li naan loolu xaarul doo ko fekk. dëgg la da nga xam nga jàng ka moo tax. loolu naan xale yi dañu war a mboppati ji hmm. foog ngay ñaax sa yeneen moroom yi nga xam ne dañu ji dañu war a mën a dem mboppati ji parce que da ngay gis ku jàppante si géew hmm. pendant trente minutes du def action du def dara day taxaw rek loolu ñàkk a mbapat moo ko yóbbee tey ji bu hmm. fekkoon mbapatoon na comme ku si mel ne di ko nuyu au passage su mel ni champion rek rek kooku buy jàpp muy jeex parce que téeméeri combat mën na ko bëri si benn tàkkusaan parce waaw may ñaax sama yeneen morom ñu gën a góorgóorlu si mbapati rek <laughs> mooy li ngay wax rek mbappa dimbali na ma si bu baax ak yàgg dem si làmb taxaw si géew man yàgg na maa taxaw si géew yi damaa bëri aareen mais yàgg na maa bëri bi ma dalee bëree yàgg na torop parce que bi ma lay wax naa lan ay si la ma gars yi doon ooy yàgg na mais dañ daan dem ne ma doo bëri mën naa leen par force damay bëri ndax ni ma tuuti waayoon ku ma daan taxaw wax ne que damay bëri ay ree dala daan jàpp même du bun bi ñuy ànd ba pat ci ki bi ma ne damay bëri dana ma doo bëri ma ne que damay bëri par force ma dem bëri ñu daan ma ma ñibbiwaat mbapat moom moo lay dimbali si lu nekk. moom moo lay def mbër sa moo lay def mbër daan la mbër dëgg. Mhm. boo ko daanee muy siisu. Mhm. di jooy xamal ne kii yàgg yàgg ëllëg dinañ ko dégg te ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu dégg la foofu. amin amin maa ngi si tànk yooyu de. bu baax. Mhm. li ma war yëpp maa ngay def. maa ngi dem entraînement. xaw ma saison bu tëjee saison bu tëjjiwul man. sama gars yi sax xam nañ nga si loolu. del noppala ko sax dañ ma koy wax. damay entraînement suba damay entraînement sama ya andren entraînement tok di xaar bu combat ñëwee ma beure bu combat ñëwul ma nek sama entraînement liggéey. Mm-hmm. business gi naari xari wala ma dem géej. Mm-hmm. man mom si ñett la nek mo amna solo. amna solo bu baax. Mm-hmm. mbër dem métier. mbër day métier lu leer. mo gëna woor sax. moy li woor xam nga tay ku ci melni tay pandémie bi nga am ni tay ji andren ma entraînement lu loolu li ngeen lek da ngay dem ku ci melni ni Ousseynou sa copain nga dem. Daniel ka man nga man nga sa waxul Daniel dem mu jël 2000 francs nga jënd ciéré toog lek waaw xam nga tamit tey ji bu fekkoon tey am nga benn métier boo xam ne da nga ko téewoo sa bopp tey mm-hmm. tey doo mën dem su seeni caw di ko fëgg wala di ko wax yenn yi mm-hmm. nga xam ne day ji mooy sa wàllu jumtukaay li ngay lekk ak yàggee sa dañ lay jéppi <laughs> dem si chaque instant ngay tàlle nit wala róolkat tey aw ma reere dama dem mm-hmm. entraînement ñëw dafa dëgër affaire yi bu yàggee sa nit ñi dañ lay jépp nit balaa mu lay jàppale day fekkee yow ngay ñu xam ne kii bëgg na dara koo gis ne kii neex naa jàppale man damay liggéey damay maali damay and ak sama gaay yi si xari opération sax tabaski damay jaay xar damay yar ay ginaal musuma dem an duma dem entraînement bu ñew naan awma luma ma wala awma luma la day fekk pelin mo nef même ya ya boko amul sax bo mbaalee ba tee di nga xëcë benn jeun ñëw lakka ka boko ko di nga mëna a lekk loolu moo ñuy dimbali su côté boobu bu ñu amul xaalis sax dinañ am jeun bo amul loo lekk bo ñëwee nga defar sa benn marina bu baax lakka sa jeun ya ngi président Père comme ni nga sank rek. da ngay jógee entraînement du ngeen am loolu lekk mm. est que moom tey jii jaadu na wala yéen est ce a ngi dem si moom di nga wan ne que maanaam seen i daal mm. parce que boo xoolee lépp équipe bi mooy seen président donc foofu war na leen mën a dimbali foofu est si côté boobu yéen si sant seen bopp si yéen waaw président mu ngi ñuy jàppale de mm-hmm. mu ñuy jàppale bu baax président mm-hmm. ndax bu combat amee moom bàyyi nga ñëw am si bi ay duubee yi mm-hmm. dañ siy sonn dañuy fayal saalax yëpp resal ñu ko ku boo amee combat bu ñu amul combat yi nañ maintien si saal bi wala ñu dem fayal suñu bopp mais bu ñu amul combat ñoo ñu jël sard yóbbu ñu si saal yi fayal ñu ne leen entraînement leen entraînement rek leen leen sante ñu entraînement ñu ngi si taxaw côté boobu bu baax règlement bi tam dinañ ñëw soutenir ñu taxawuñu di jéem a coytu kër mbër mi la moo fa manqué affaire yooyu ñuy jàppale bu baax ay odo bàyyi tam duñ ñu may dara Papa Fall temps yi moo ma yor kër su physique ma dara moom Papa Fall mm-hmm. maa ngi gërëm bu baax mu may jàppale. gis naa sama bopp quoi li may def loo. Mhm. loolu lu am solo la moom tamit ñu ngi koy nuyoo passage. Mhm. mu ngi si yoof wane na doomu yoof la. mu ngi jëlee xam-xamam. Mhm. doonte dem na quartier ñëw ne defuma ma dara. yoof laa am yoof laa am ñëw di leen jàppale est-ce que jàppale boobu yéen da ngeen ki xaalis di ko jox. wala mu mu leen jàppale ngir yàlla. ngir yàlla rek lay def joxuñu dërëm. temps yi fi mu ñu nii si salle bi. ñoo fa jël suñu quelques gars rek. ñu ne kon kii bu mu ñu gën a gore. mu ngi def lu rafet ñëw duñu du ñu dara laajuñu ko ñu dara. ñun ñoo ne nañ xool luñ dajale rek. weer bi ñu ko koy jox. moom mu gis si boppam bu baax Fall oncle gis si boppam. parce que dafa yor soxna yor ay doom. bàyyi leen bàyyi temps bépp ñëw ne damay jàppale mbëri yoof kon kooku warul am desala duñ ko dara waaw. mu ngi jàppale bu baax jeunes Yoff bu dul jigéen ñi di góor ñi. Mm-hmm. day entraîné jigéen ñi paaye maire yëpp lay jàppale. Mm-hmm. fu nekk nga koy gis mu ngi dem di entraînement. Mm-hmm. des fois day jóge fii sax maa ngi dem Maris. damay am ñu may cotiser foofu wala ñu jóge fii. mu ne ma méngeel laa jëm daa am ñu may cotiser foofu. mu ngi ne Yoff bu baax. di ka ñaanal yàlla rek li mu bëgg yëpp yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla sottil yoonam bii. lépp lu mu si bëgg si course bi muy def yàlla yombalal ko léppam. parce que amuñu fayam borom baax la Papa Fall. sànq wax nga sa biir wax nee nga ki nga xam ne mooy meeru Ngor mooy ne jàppale mooy at yi. yow nga juddoo yoof doon mbërëm yoof. Mhm. te nga santu sa bopp si meeru yoof bi ba tax nga dem jéggaani ji dem si nga xam ne mooy meeru yoof muy at yi ati sàmba ñu ngi koy nuyoo passage tamit. waaw moom tamit mu lu am solo. Mhm. moom xaarul mbërëm yoof xaarul mbërëm Ngor toujours mu ngi def si maanaam ndawal ñaari réew daal. Mhm. yow da sa bopp si si meeru yoof wala yoof man mboog mosuma am sens boobu fekk man dama daan am combat ñii ren daan dem def démarché ku su mel ni dari mhm. buñ daan ñëw dañ naan ñu da ngay bind xaw ma lan xaw ma lan ngay bind 15 jours mhm. parce que bu boobu duñ la ko mën a jox duñ la mën a defal li ñu la bëgg a defal mhm. mais dama bind kayit ba sonn maire yoof man awma fa dara mosuma fa bëri bañ ne ma lii maire yoof la jóge Abdou Naar daal mës na maa may xaalis fii bu ma doon bëri ña sama combat mbappat la woon xaw ma xaw ma combat bi la woon xaw ma premier combat mooy nu ma xas mais man meeru ngor bi sama ndijaay la. Mm-hmm. moo suma yaay ñoo bokk ndey ak baay moom xati. Mm-hmm. ma ne kon tey man sama nit la suma deret la man mm-hmm. war naa dem ba si moom te yàlla may na ko war naa dem ba si moom mu jàppale ma. moo tax may dem ba si moom su ma amee combat mu wax ka mu jàppale ma si combat bi damay may ay kaa daf may may lu ma rëggul mooy. des fois mu jëndal ma boloku ticket benn wala ñaar. man koo xaw ma bu ma fayam. te yoofu gi ma dëkk aw ma fi loolu. moo tax loolu gese la. foofu tamit dañ fiy ñëwaat moo tax Igri Yoff yow nga ne doomu yoof nga taxaw di représenté maanaam drapeau yoof tey boo jógee yoof gépp jóg hmm. ñu ne nga déposé pour ndimbal ah. waaye maire bi siisul lu ñu ndimbal pourquoi da nga amaat ñoom ak paf wala qu'est-ce qui la doo amaat ñoom dara man loolu noonu la ma jaaxale da ngay def ndimbal balaa muy ñëw si yow wala bu nekkoon cent mille buy ñëw si yow hmm. yow quarante mille ngay jot wala cinquante mille hmm. mais loolu tamit war nañ nga mën a xoola dangay ngay def ndimbal doo ko gis def lu nekk mais tamit ni doo topp rek chaque instant dem fii dëgëre da ngay bàyyi dem làmbi feneen mm-hmm. ay seexu jay yi moom li ma lay wax ni su may bëri dañuy yëkk xaalis Ali Seck mm-hmm. xale bu ndaw la moom may defaral ay tiset bësi géey aw ma seen fay boo yi may àndal nii fu ne la ñuy ket ñii fu ne la ñuy dugg mm-hmm. te maire yox bu ñu doon jàppale dëgg-dëgg amaana ñii coono boobu du leen si fekk coono bi li leen siy daj mooy règlement bi kër bi servir añ yu ndox mais ñii fu ne ñuy dugg di ketal ay mbër mais kon yéen a ngi dundal lu doy waar. ñu dundal loolu si làmbañ. ñoo tax ñuy gën a ñaan maire Yoff rek ñu jàppale ñu bu baax a baax. maanaam yow bu amee commande ñan ba ñoo xam ne tey jii di nga a dem si ne la diw nii maa ko yónni ñan nga doon yónni. man ñi ma yónni. Mhm. dadi la dadi moo ma mhm. daan bindal affaire bi. Mhm. magam koy baax moom laa ko doon moom la ko booy doon yóbbul suma. moom si maire bi la nekkoon moo ñu ne kat kon nu nañ jaar foofu. si suma. dadi moo ñu doon bindal ñu dem. mais biñ demee. gisuma sama bopp quoi premier mhm. mais deuxième bi dawma mhm. donc parce que ma ngi doon xalat loolu rek wala dama may sonal sama bop moy loolu mhm. mais ñom bi démé won liñ bëggoon ci maire yof jàppale ñu amuñu ko ñu dem di juwaat fenen xoli fenen rek ku ñu jàppale si combat est-ce que ñu ngi jaar fañ dan jaar ñan si est-ce que ñu ngi daan yónni nañ dem ci ñu ngi leen yónni waaw loolu tamit wa dese naa am luma leer nañ carrément dese naa am luma leer nañ mais man daal dinaa leen wax bu ñu demee ne ma dem nañ wala bu ñu demul ñu ne ma kat demuñu fii fii lañ dem <laughs> et man dañ daa ñëw rek ne ma maire bi mooy loolu <laughs> feneen a fii lii diw moo la ko jox lii diw moo la ko jox <laughs> ñoom ku ma jox rek dinañ ñëw ne ma diw moo la jox lii moo tax ko ñooñu laa mën a wax ne ñoo may jàppale xëy na nag maire bi am na fu ñu ko def wala am na fu ñu ko jox te gisuma ka li ma gis moom loolu laa wax mais est-ce que jàgg na bi nga daanee est-ce que loolu yow bi nga toogee si plateau bi est-ce que loolu wax nga ko ne carrément ñii. maanaam tey xam nga dañ boo ko waxee ne ati mu may jàppale. waaw ñoom dañ siy gis seen bopp. Mhm. dem dem ñu ne kii noo ñëwul si ñun wala respecté wu ñoo yooyu yoo yooyu. nga toog tagga maire boo xam ne tey mën nga wax ne du maire bi yoof. Mhm. mais lépp benn la yoof ak ngor moom daanaka ñoo bokkoon day bàyyi. Mhm. mais dafa jaadu ñu leen di defal parce que yéen. da ngeen sonn jóg fajar. 4 heures du matin entraînement amuloo lekk. ngay dem di kat di taaba taaba di wut te ñoom ñi nga xam ne ñoo war a mën a dimbali. te li ñu leen dimbali yéen yéen a ko moom. Mm-hmm. donc dañ leen war a mën a dimbali. loolu rek mooy suñu problème maire bi dañ ñu war a jàppale bu baax. Mm-hmm. soo premier combat bi ma daanee gërëm du lancé ma message ne maire bi mais yoof gépp laa boole ne yoof jàppale nañ ma bu baax aw ma seen fay. Mm-hmm. waa yoof jàppale nañ ma bu baax si combat bi. loolu moom wax naa ko si mais maa ngi ñaan maire bi ñu gën ñoo jàppale si combat surtout ñun mbëri yu yi <laughs> dañuy sonn bu ñuy bëri boo gisee dañuy war a bëri sax dañuy jékki saa sax ngeeraat <laughs> ndax lijjanti lu bari <laughs> bëgg ak mooy aide ku ñu jàppale su ko de ay siège wala regroupement bi fii genre wala bu la mën loo jënd benn bolek ñu jëndal la xaaj sax wala ñu may la cent mille wala ñu may la cinquante mille ñu xam ne maire Yoff ñoo jàppale lii kaabal gi mais tamit loolu yëpp boo ko bëggee taxale sa bopp mais day metti mhm. loolu rek mooy suñu pèlerinage ñu mhm. ñuy jàppale bu ñu jëndalul bolog ñu may ñuy kaar bu ñu mayul ay kaar ñu defaral ñuy tiset ñu mhm. gisu suñu bopp yoof am na ñëpp ñu ñuy jàppale si mbëri yoof ñu ngi jàppale ñenn ñi am na ñu ñuy jàppale mais jàppale ñenn ñi jooju moom laay bëri parce que lépp yoof la dont tey jii mënoo jàppale kii ne da jàppale kii yaa ma mbër mu ndaw mi mbër mu mag bi ñoo yem waaw boo gisee moo xam ne loolu xëy na seeka comme li nga ma doon laaj sànq rek naa man est-ce que ñu ngi lay demal lu leer mhm. xëy na ñoom ñi leen di demal am nañ accès si ñoom bu baax mhm. xëy na xam nañ fi ñuy jaar mhm. bay bañ am liñ bëgg xëy na man loolu man na ma manqué tamit loolu tamit mën naa am mu manqué ma mais am na ñu ñuy jàppale ngir ñuy bëre dañ leen defal nàngam wala li ngeen nekk mbër mu ndaw comme ñu ne kaabal gi booy bëre ñoom souvent ñoom duñ la xam mm-hmm. mais ku si ma ne tey jii moo xam nga partout dans le monde ràññe nañ ko fépp tey jii bu déposé rek mm-hmm. a a mën a a dimbali loxo pour ngeen mm-hmm. jóg pour mën a indi nga xam ne tey jii dañ leen koy ñaanal yàlla roi des arènes ñëw yoofu loolu suñu ferte la ferte la lébu gépp la tey ji yow ban message nga may jox foofu. loolu tam mën na see nekk mën nañ ne kon kaabal gi la mbër mu daawul rek. Mhm. mooy loolu. mais dama yaakaar ne tam mbër mu ndaw ëllëg mooy doon mbër mu mag. Mhm. tey mbër Ikri Yoff kenn xamul kan mooy champion bi. Mhm. tey Modja mën na jóg bañ na Modja la caatu ngéwél ñëw. caatu ngéwél ñëw mën na jóg bañ na moom la. Siteu bu Yoff ñëw. wala Ama bu Yoff ñëw. kenn xamul kan la. moo tax da war a jàppale ñëpp rek tey la tax comme dañ na mbooloo mooy doole. ñu jàppale ñëpp. dimbali le bo boy boy jox mbeur mu mag mi 100000 jox mbeur mu ndaw bi 25 50000 sax jappalé nga ka et la mais moy dal lool la rek ndax mbeur mu ndaw tay moy don mbeur mu mag ndax xamuñu kan moy don champion igri yo effectivement xamuñu kan la motax kon boy jappalé rek jappalé ñep bari na mbeur yu taxaw ci tay di siisu di gëreum ñi di baye ñi genre yoy lay démé mhm. genre calan yi lay doon mhm. mais boy yamalé ñep ñep ñep dañuy xamné ñi mhm. ñu koy tek ci axe yeah si wàllu si wàllu géew bi lay ñëwaat tuuti. Mm-hmm. dañu seetlu toujours. Mm-hmm. mbër danaan bàyyeekoo si benn gox ñu ne kii yoof la bàyyeekoo. Mm-hmm. tëgg mi ngeen dem. yàq tëgg mi indi tëgg moo xam ne tëggam jàmbur la dem indi tëggam séeréer wala tëggam ndëb kenn xamul tëggam la la ngeen fàtte seen tuus yéen. parce que lépp dafa am benn critère bu nekkoon si moom. bu ñu ko daan xamante bu ñëwee day koo soow. maa ngi nuyu passage waa Fass. waaw ñoom bu ñu duggee si làmb rek automatiquement da nga naan Fass ñëw na indi nañ bés. Mm-hmm. parce que dinañ këppoom soow dinañ def lépp turoo njaxa gi. Mm-hmm. dudd dublu si ñeenti xibla yi. Mm-hmm. tey joogi ñu wane ne ñii am na traité lëbu ju nekk si ñoom te loolu yéen gisatuñ ko si yéen loolu yëpp dee lu waral loolu. waaw man de amaguma sens boobu xëy na tamit ñi lu bëri am grand combat am temps de tuus bu baax am na saabu mais man sama ñaari combat yi ma bëri yëpp tuusuma sax. damay tardé. premier combat bi ma ñëwee tuusuma. deuxième combat bi ma ñëwee tuusuma mais balaa may dem damay tuus fii si kër gi parce que dañ may digal loolu. damay tuus fii. mais lamba ji amaguma sens tuus fa. maanaam da ngay oo maam Njare. waaw damay mhm. tuus fii. parce que da ngay wax mhm. waaw samay mbokki ngoreex yoo fi dañ may digal loolu. Mhm. am ñu ma def damay tuus fii. mais stade bi ma demee tuusuma. waaw la moo tax stade doo tuur. waaw parce que dama tardé woon. sama deuxième combat dama tardé. réer nañ tardé nañ. parce que dañ yaakaar ne tali bi fii day xat. Moussa mu jël yoonu géej bi ñu dem Cambérène fekk fa circulation boo xam maare day taal yi. ñu am pour jëlaat yoon dem stade rek. dama ñëw rek tàkk ñu ne ma yaay bëri. dama kooku àndulaax xel mu dala lépp ma. ñëw rek pression noonu la kaay yaay bëri tak tak teg say cumbukaay nii rek dem bëri. defoo li nga war a def amoo temps dara. lépp mais xam nga loolu damay gën rek sama prochain combat. dama am jàngat mu bëri laa si jëli. sama bi ma jógee nii. peut des ñu ñu ne kaabal gi am na combat tey ñu koy séntu muy ngemboo yoof hmm. ñu gis sa waaye mu taxaw ngembu. wala ñu gis sa ngor wala wakam Yoi, ay tettal la yu na jox la wala lan mm-hmm. non man damay dem dañ ma tettal dina dem fo dina ñew mais man fi lay ngembo ci mm-hmm. ne bi ñu tok ni mm-hmm. sama ñaari combat fii laa ko ngembo yo fi mais bala may beure ji dina am fuma dem dina am fu ma bo, yoy mais yow mal ngembo jëree fi lay ngembo fi lay gene fi lay demee sax waaw ñu gis côté bobu mbeur au souvent dañ day gis bu ñew ci lamba indi percal percal bobu lu ñen la wala tay percal bobu dama bëgg ngeen di ma si ay jàngat yu leer pergal boobu yéen lan la. waaw lu weex c'est lu weex dafa baax rek. Mhm. dafa baax si ay xëccoo yi. Mhm. lu weex sarax la teetal la rek sans départ rek su ne lii lay laaj kii mhm. mën nañ jàllale pergal yow nga ñëw ñu laaj la ay ndox. naa leen indi lii kii ñu laaj ko biscuit. kii ñu laaj ko soow. waaw mais ku si nekk am na si yoo xamante ne moom doo ko mën a wax quoi. mais man samay biir moom xam naa manuma gaaw a fii moom mais ku si ne am na loo xam ne moom ngay àndal booy dem. loolu lu solo la. lu am solo la. parce que ay doomi Lébu lañ nekk ay doom Yoof moo tax. yooyu du si ñàkk il ñu mënoo dem bàyyi leen ñoom ñu dem bàyyi la. Mhm. il faut ñu booloo ñaar yëpp. Mhm. dem bëri yi. est-ce que bu bëri da ngeen dem tuuri ci ku si mel ni dem seeti ku si mel ni tey Binta Ndiir. Mhm. wala ngeen dem seeti ku si mel ni Yaay Penda Jeen ñoo xam ne tey jii ñoom ñoo fi nekkal maam Jere. est-ce que di ngeen dem ci ñooñu di sàkku foofu ay ñaan ñu leen jox teetal li nga xam ne tey jii war fa mën a dem war ngeen fa mën a dem pour sotti fa li nga xam ne moom tuuroo fa mu soow mhm. ngeen parce que lébu moom mhm. waaw lébu moom day xajam comme waxee rek lébu moom lébu bu ragal amul fenn amul fenn ban message ngeen jox ñooñu waaw man de damay tuur moom damay mhm. ban naa moom mais jaar ma si ñooñu mais am na ñu may teel am na ñu may demal ba ñu wax ma fi may jaar ba dem fi ma war a dem man yu si bëri ngor la samay mooy loolu samay affaire yu si bëri ngor la Mm-hmm. mais damay tuuru damay dem géej. Mm-hmm. damay dem fi ma war a dem yëpp ku si nekk li ma la war a jox ma jox la ko. Mm-hmm. dem uti ji jox maami daal jox maami. waaw kon nga neexal leen. parce que ñoom boo neexalee rek am na lu lay xaar. kese boo leen neexalee rek ñu bégal leen. loolu moom am na moom. loolu am na solo. lamba moom lamba dañu gis ne lamba souvent souvent. yéen mbëri ndaw yi par des fois seen i jege ñaare maanaam ñi ngeen di àndal. tey dañuy dem. on gën maam te ñu war a conscient. Mhm. duñ ko def dañuy topp mhm. bàkku beex. Mhm. day fekk ab Ousseynou Thiaw. waaw kenn xamu ko seen kër sa xamuñu ko fa. nga dem àndax moom mu war la jàppale gunge la. nga gis ka mu topp fecce meex ba fàtte loolu waral par des ngeen a sutante ay gàllaaj mu war di yàq combat am na combat ñax a jariñu Alioune Seye 2 boo xoolee loolu moo ko yàq. waaw jege ñaale yi si boppam ñoo ko yàq. mais mbëri duñ yàq làmba ban message ngay jox ñi ne ñooy jege ñaale waaw jege ñaale ma leen wax rek man moom ñi ma yor moom yàlla def na ba meluñu sax xamuñu sax yaax mhm. dañuy sañ sangu ba seet xeeñ lu neex sañ se dem stade toog mhm. seen mbër bu daanoo ñu sibile ñi bu ñu daanoo ñoo xam ne lii la yàlla dogal mhm. man xaw ma sax ay yaaxakati làmb man xaw ma ko sax dañuy dem àndax man si njëkk ak teraange lépp lu war si jour bi dañ koy def lu ne dañ koy daj tous bi tamit saa mooy li ngay wax ni rek saa yenn bagage yu xëccoo am yu sew am si mm-hmm, mm-hmm. jéem a mm-hmm. da koo sa mbër dox si maayanam yooyu yëpp day am si biir làmb yooyu yëpp mais man mosuma see am soog boobu mosuma kaa am si làmb am accident boobu defante nangam xëccante gàllaaj wala dóorante fii man mosuma def mais dinaa taxaw suma adversaire bu ñuy dox xam na nappante bi ku ne indi li nga yaam gën a xam sànni tey xeer affaire yooyu mbalagante tooñ yooyu di dal waaw mbokk yi loolu li ñu la waxoon rek temps bi xoj nañu. temps bi xoj nañu comme li ñu la waxoon émission bi nga xam ne seeti mbër te ki ñu seeti woon mooy kaabal gi bu yoof kaabal gi ne naa leen fu mu bàyyeekoo fa la Malick Niang dëkk. moo doonu Malick Niang yaa doonu Santa Ñinga. yaa doonu Bisli Ndoy yaa doonu Baye laay Diop. Demba Thiaw yaa doonu Demba caw yaa doonu Baye Ousmane Ndiir loo may was loolu. waaw ñun de moo tax ma ne la seen yof góor rek la xam nga yof ay champion nga lim. ku si mel ne ay Demba Thiaw. bésam moo fóotu duusu ba fii. lu garaaw la lu garaaw la ñu ne la lu garaaw la dañu war a góorgóorlu ay santa ay bàyyi bismi. lu garaaw la. ay ndaanaan rek ka fi nekkoon moo tax ñun ñàkk fayda waruñu liggéey rek moo ñu war gën a góorgóorlu xam ne nii ay ñoom Balla Gaye téye ay ñoom Modou Lo téye war na mën a am yoof nañ ñu jàppale rek uhuh. billaahi jeunes yooyu ñu ngi yoof uhuh. bu ñu jàppalee dañuy am liñ bëgg mais xam nga tamit ngay nekk si benn affaire di si nekk nii gisoo ñu la tegloo dafa metti mhm. mais bu gars yi ñëwee rek yof di nga ko sa kaw sa kanam mhm. parce que bëri baa ngi fi mhm. gars am nañ sañ-sañ am nañu nañ fit ñu dañuy entraîné dañuy bëri ñi mel ne lu metti kàddu gu mujj kàddu gu mujj mooy nuyuwaat sama gars yi rek di nuyuwaat waa yof di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaanal Baye Ablaye yàlla defal ko fan mu gudd. amiin di ñaanal yéen tele Yoff bi sa kaw sa kanam. Mhm. fi ngeen bëggee naka xam yàlla leen fa yaaga yàlla yeegale. amiin di ziar sama gars yi di leen bëgg ñi ñëpp aw ma seen mhm. fay. Mhm. suñuy bëre lu ne la ñuy daj. ay bësigé yi maa leen di gërëm. Seexu Dia. Baye San. Baye San sama ndijaay at yi monsieur le maire. waaye Yoff gépp. maire Yoff tamit. di leen waxaale ñu gën ñu taxaw rek bu baax. parce que ñun ñoom lañ am. ñoom ñun lañ am. ñu dem sans ñoom. ñoom ñu dem saa ñun. bëggoon mhm. ñu jàppale rek yoof sa kaw sa kanam. Mhm. maa ngi lay jaale paa bi di la wax ne siggil diggaale. Mhm. di la wax ne yàlla na suuf yoof si su kawam. amiin di la wax ne yàlla na ko yàlla xaari àjjana. amiin loolu fekkuma fi woon dama fekkoon ma génn. dëgg la la ma ko tamit di ko nuyoo passage moom tamit moom wax ne ma papi sum dafa wàññeeku. waaw di ko ñaanal yàlla daal yàlla saraxam yàgg seen loxo. mbokk yi comme ni nga waxoon rek émission seeti mbër la ñu wax tey ki ñu seeti woon mooy kaabal gu bu yoof ñu naan xale boo xam ne ñëpp a ko ràññee si làmba ndaanaan piir la bu bëree nga kontaan bu feccee nga ree lu mu def noonu la mbokk yi di jox dig daje ba beneen seeti mbër ah beneen mbër.